Euh, keneen kii mu ngi nekk euh, Junior Guèye moom itam di euh, animateur présentateur Atlantique FM faay itam ci si Setsima TV du coup miin milieu showbiz looloo tax tey invitation Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la nuyu sëñ Xaadim. laataa mooy dugg ci invité yi nag dañuy ñëw léegi léegi ci seen rubrique Actu Info. Actu Info bokk na ci li ci euh, gën a fës mu di ne euh, vaccin yi nga xamante ne bii ñi ngi wéy askanu Sénégal di vacciné wu waaye dëkk boobu nga xam ne moo di Touba Mbacké dañu fa nemmeeku ne vaccin yu bëri mu nga yàqu ca district sanitaire bi wala district sanitaire bi am nañu euh, yaakaar ni xaj na yooyu la vaccin dina yàqu ndax askanoo ci boppam nanguñ koo jëfandikoo muy askanu Touba Mbacké ñenn ñi moo tax nag ñoom ñuy lancé fi mu nekk nii appel di ñaan ngir ñu dimbali leen balaa vaccin yooyu di périmer ci seen ay loxo leneen lii di euh, plainte boo xamante ne bii kii di Adji Sarr déposé na ko wala euh, waaye avocat am itam maître El Hadj Diouf déposé na déposé na ko plainte euh, ci film boo xam ne dañu ko tuddee cëy Adji nga xam ne personnage principal bi dañu ko def Adji Sarr maanaam di ko toppandoo ak yu ni mel loolu lee nga xam ne dafa naqari lool kii di avocat maître El Hadj Diouf moom itam di avocat bu Adji leneen lu ñuy tëje mbokk yi bokk na ci CNRA ki ko jiite di Babacar Diagne ren nag teel a artu média yi maanaam dafa wax ni télévision yi ñoom euh, nekkewuñ fi lu dul weeru koor bu jotee ñuy jël sëriñ si di leen tëkkale suñu kilifa diine yi ni mu ko waxee sax moo di ne daal dañ leen di jël boole leen ci am làmbu ring la euh, woowee euh, boobu le moo nga xamante ne bii nag ren teel naa artu nee na ren buggul a gis benn télévision di def loo ne ndax suñu kilifa diine yi liggéey nañ fi loo xamante ne bii mérito wuñu ñu dee ñu di leen jaxasee maa di leen tëkkalee bu loolu weesoo man dalal sëñ Ibrahima Faye euh, sunu invité sëñ Ibrahima maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Xaadim maa ngi lay fay bu baax di kontaan bu baax ci invitation bi ñu invité fii ci Setsima TV waaye aussi di rafet lu baax liggéey bi ngay def waaye di nuyu Junior Guèye bi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo ñoo bokk li nga xamante ne moom mooy plateau bi. nga abordé fi nag ay euh, thèmes yu am solo wax dëgg yàlla xam naa loolu thème d'actualité la. Euh, li ñuy njëkkee léegi léegi ci actualité bi mooy. vaccin yi nga xamante ne bi ñëw na ci diwaan ba di Touba Mbacké ñu gis ne askan wi ñu koo jëfandikoo ba district sanitaire ba di lancer appel parce que nee na dafa nar yàqu. effectivement waa Touba dañ dañoo wax ni non à la vaccination te man jàpp naa ni aussi waxoon naa ko fi xam nga mbirum vacciné wu maanaam dafay engagé nit ki maanaam c'est personnel léegi nag waruñu wax nit ki da war a vacciné wu par la force. parce que vaccination encore une fois maanaam yow lay engagé bu fekkente ne sa xel doy na la mun nga vacciné wu bu fekkee sa xel doy la aussi mun nga bañ a vacciné wu léegi nag bu fekkente ne dañ fa def stock boo xamante ni ñoom dañ ko réservé woon waa Touba waa Touba am ci ñenn ñi parce que aussi il faut noter que am na ñoo xamante ni aussi ñoom ñu ngi vacciné wu nañ foofu parce que am na ay chef religieux ay guide yoo xamante ni ñoom génn nañ wane le bon exemple lu mel ni sëñ Bass Abdou Khadre ak yeneen kilifa diine génn nañ vacciné wu kon donc am na ñeneen ñoo xamante ni peut-être vaccination yooyu noonu dalul seen xel kon donc maanaam loolu ñoom la emporté. xalif bi vacciné wul. loolu nag dese na maa wóor parce que déggoon naa ci ay rumeur ñu ne dina vacciné wala vacciné wul mais loolu ba léegi dese <laughs> dese na. Abdou Khadre vacciné wul moom. vacciné wul mais sëñ Bass Abdou Khadre moo yor porte parole yoonu Mouride donc moom su vacciné wu pour man euh, Mouride war nañoo topp ndigal vacciné wu ginnaaw ñoom ci ndigal rek la ñuy la ñuy la moo yore porte parole xalif bi d'accord mais yorul porte parole bi nga xamante ni parce que bu sëñ Bass Abdou Khadre bu bu bu vacciné woo moom la engagé bu fekkoon ne sëñ Muntaxa dafa génn ne maa ngi joxe ndigal murid yëpp ñu vacciné wu laa boobu nag dinañ ci mën a dugg dinañ ci mën dugg kon boobaa man sax dinaa vacciné wu parce que kon dama naa lii kan ndigal la ndax murid nag leen rek lañ leen xamee mooy dañu dégg ndigal sëñ Bass Abdou Khadre ma jàpp naa ni boog ci li ma jàpp su vacciné woo dafa bëgg wane rek le bon exemple wan ne ni murid yi aussi te il faut tamit noter que murid tamit maanaam nekkuñ ñoo xamante ni dañ dañ ay ay fanatique am na ñoo xamante ni aussi dañuy yor seen intelligence di xalaat bu fekkante ni vacciné yi encore une fois doy na seen xel mun nañ vacciné wu mais bu fekkante ne doyul seen xel nag wax dëgg yàlla aussi doo jàpp nit ki naan ko far force nag da ngay vacciné wu ndax ndax vaccination dafa nekk mbir boo xamante ne c'est c'est personnel seen xarit. mais lu tax ne Touba est-ce que Ndakaaru fii sax nit xam nga Touba dafa nekk maanaam lu am solo yoonu murit waaye lu am solo ci Sénégal il suffit que nga mettre l'accent sur Touba rek da ngay gis ni da ngay am zoom sur l'actualité day ñëwaat foofu noonu maanaam parce que Touba dafa nekk loo xamante ni aussi ñëpp dañ koy bàyyi xel kon donc bu ñu nee Touba rek il suffit que ñu ne Touba rek dangay gis ñu bëri seen xel yi dañ koy wëlbati di jéem a xool lan lañ ci wax soit ñu wax ci loo xamante ni lu négatif la wala ñi nga xamante ne aussi yàqamte nañ lu positif ñu wax ko ci. Adji Sarr bii yoon Adji bi yoon euh, plainte na waaye ki mu plainte du Ousmane Sonko moom ki mu plainte fi mu nekk nii mooy ki moom série bi di euh, ci Adji Sarr euh, loolu noo ko gisee. waaw man de je suis d'accord ci Adji Sarr def. Hmm. waaw maanaam du ma sax avocat du diable. waaye aussi tamit nit ku nekk en tant que nit kuy raisonner ak kuy xalaat parce que man jàpp naa ni Adji Sarr maanaam lim nekk victime rek doy na. mais nag bu ñu jëlee nag yeneen euh, personnage wala di ko caricaturer nag laa ça devient grave te ñi ko def aussi sànq maa ngi doon xool euh, video mais dafa mel dañu retirer li nga xamante ni moom mooy nom bi parce que waa waa waa Kéemaan Vision ñoo ko def te effectivement maître El Hadj moom moo moom moo demandé à ce que ñu porter leen plainte parce que ñoom dañoo joué li nga xamante ni moom mooy benn scénario boo xamante ni Adji Sarr dañ ci dañ ko ci def maanaam mu nekk benn masseuse boo xamante ni de récupérer li nga xamante ni ku ñëw mu récupérer ndax lay récupérer sa xaalis bu mun la tëddee kon donc loolu te te jàpp naa ni si lu ma si lu ma njortu Adji Sarr du woon loolu moo taxoon moo moo ko taxoon jóg je pour Adji Sarr mais juste que damay def une analyse mais Adji Sarr yi bëri que du est-ce que ñoom it amuñu droit est-ce que seen film tuddee tuddee euh, tur bi ñoom loolu la wax sax parce que dégg naa sànq benn interview ci benn waay bañ ko interviewé loolu wax def ne ñun nekkul Adji Sarr moo tax a jóg mais nag xam nga dañ ne euh, en marketing boo koy jàng bu fekkente ni kii dafa tudd junior yow nga def junior xam nga day am sous-entend léegi sous-entend googu nag da lay da lay da lay da lay da lay remettre en cause ñu bëri tamit jàpp nañ aussi Adji Sarr boobu la parce que tamit ni ñu ko joué ak scénario bi ni demee yëpp dem ba ci laal côté massage laal ay côté li nga xamante ni homme de euh, valeur benn homme politique yooyu yëpp ñu bugg ko ci sërxalaale ah loolu moom voilà loolu dafay dafay laaj dafay remettre en cause ci loolu noonu. Euh, d'accord euh, xam naa ni da ngay tegandi sa baaraam euh, ñëw ci junior laata ñuy tënk point bu mujj bi junior en tant qu'animateur nga gis ne fi mu nekk nii dañuy dugg ci weeru koor week-end bi donc ñu bëri profito def seen ay soirée mais selon artistes yi ñoom façon bi ñu ko defee donc ñëpp bëggoon a tëgg est-ce que sa explique que ni daf leen di permettre weeru koor bi ñu am parce que ñëpp profito nañ tëgg ah. artiste bu mu mën di doon tëgg nga ci boîte euh, est-ce que weeru koor bi moo taxoon ñuy profité di tëj saison comme ni ñu koy waxe maa ngi lay nuyu sëñ Xaadim bu baax a baax du nuyu waale sama naataango bi nga xamante ne mooy Ibrahima fay nga xamante ne ñoom ñoo man moom ñoo bokk liggéey bi comme ni mu ko waxee léegi di ko jaajëfal bu baax a baax. Euh, li nga wax dama ci dama ci am mbégte ak bànneex pour répondre si parce que actuellement boo xoolee. Sénégal artistes yi boo xoolee ay at a ngi nii noonu la ñuy demee waaye boo xoolee bu ren bi daf cee raw donc bu ren bi ni ma ko mën a analyser lu tax mu raw ci mooy que ne dañoo jógee ci ay situation yu yu métti surtout ñoom artistes yi dañoo jógee ci ay situation yu métti boo xoolee mën naa ne presque at ngi nii ñoom ñëpp kenn tëggul ci ñoo xamante ni bii si la yor seen papa ñu yor si seen yaay ñu yor seen kër comprendre donc pour man bu ñu leen mayee benn occasion bu tuuti rek te koor gaa ngi ñëw te koor gi xam ne ni duñ joué ñoom tam war nañoo ndogu ku ci xam ne yow yow xam nga artiste bu baax a baax ci milieu bi nga nekk boo demee kër artistes yi da ngay gis mbooloom yëpp dañ fay nekk chaque jour xam nga ñi dañ leen di seet si subaa ngoon guddeeg bëccëg am ñoo xam ne dañuy forcer pour dem pour ndogu foofu donc kooku bu fekkente ne yow da nga koy dem pour nga ganale ko te amul loo xamante ne loolu loolu loo jox aussi day xaw a metti parce que boo gisee tey ñoom ñëpp lu war ñu tëggandoo ñoom ñëpp pour am loo xamante ni bi au moins score gi dinañ ko mën a demaale ak seen seen seen seen njaboot wala fay ci location wala leneen leneen ndax ku ne xam ne ne situation bi ñu jógee nii dafa metti bi ñu leen ubbilee événement événement yi ak léegi yàggul donc ku si nekk yaa ngi profité pour am loo xamante ne bii yaa ngi koy yóbbu sa kër ci biir loolu aussi sëñ Xaadim euh, dañoo toll jamono joo xamante ne bii actuellement fii ku ne xam ne ne Sénégal buzz moo la fiy may dara te artiste boo toogee lu yàgg kenn déggatu la maanaam fay nga noonu lañ koy waxee da ngay gis artiste boo xam ne sax day toog ba mu yàgg sax mu créé benn bruit benn coow boo xam te pour mën a yéegaat ci kaw pour fàttali nit ñi ne leen maa ngi fi ba tey pour ñu ko fàtte woon mën a xamal kat ah kon diw mi nga existé ñu si bëri ah artistes yi dañ koy def dañuy jékki-jékki créer benn buzz boo xamante ne bi juste parce que ñoom amatuñ luñ def xam nga génneewuñ single génneewuñ dara ñu ngi ci si seen ndoxu di liggéey mais pour fan yi bañ leen a fàtte mooy war a ñuy créer benn affaire bu ndaw comprendre nga lu ci mel ni Bass boo xoolee dafa nekk moom nit koo xamante ne bii day xool actualité bu tuuti rek xam nga tey benn wax bu ndaw rek ay xanaa neex ak lool mu génnee ko benn affaire boo xam ne ay ay maanaam singalu euh, une minute ak 30 secondes pour exister maanaam pour wane boppam ba tey donc actuellement foofu lañ toll donc artistes yi si comme ni nga ko waxee weeru koor bi mi ngi ñëw xam nga ñu ci bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi kii ñi ngi euh, ñi ngi tëj saison beeg yooyu voilà alors euh, ci beneen pàcc bi may jàll ak yow junior mooy gis nañu Raaya Music Award donc ñu nomine euh, ku ci mel ni Ibro najo euh, man maay rakki mam ma mbaay donc ñu def ñu gis ne single boobu ren moom la ñu nominé tube de l'année yow loolu naka nga ko jàngate waaw xam nga Ibro najo dafa nekk euh, ndaw boo xamante ni bii maanaam man ni muy maanaam ni muy ni muy demee actuellement ci musique sénégalaise neex na ma parce que moom dafay jël temps ci jël temps bi dafay togg loo xamante ni bii bu génnee askan wi dañu koy bëgg xaadim ku ne xam na ne. Sénégal xam nga lan lañ bëgg mooy rëpp rëppi rëpp rëppi dégguñu ki nga xamante ni bi moom mooy way dégluñu ko de sa musique la ñuy déglu mais dégguñu say parole boo xoolee lu tax ki ci mel ni Bass Thioung am na ku ci mel ni euh, Kële euh, nu mu tudd Ibro Naajo am na c'est-à-dire ñoom dañuy indi mbalax pur et dur boo xamante ne bi askan maanaam que ñoom ñoo koy consommer moom la ñuy consommer donc loolu tamit daf ci daf ci daf ciy jouer pour nga am dara est-ce nga boo gisee ñi ñu jox ñëpp tey dañuy xool ñi nga ñoom la jeunes yi àndal ñu jox leen donc d' mhm. euh, nga ci nomination bi que mu du man maay rek ki moom mbaay war na mën a nekk type de l' année waaw type de l' année bi nag boo xoolee daf ci bokk ci liñ koy joxe mooy son bi gën a cartonné son bi nga xamante ne moom moo gën a def buzz waaye nag ñoom aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe type yi war nañ di dugg tamit ci YouTube pour mën a xool exactement maanaam son yi nga xamante ne moom moo gën a cartonné ak yi cartonné parce que tey xool tey lu ci mel ni ki jiba son boobu guy 6 millions de vues la def ci un mois comprendre nga ak ñeneen ak ñeneen maanaam voilà bu ci xoolee ñeneen ñeneen cest à ñoom bu ñuy xool kii pour juger pour joxe war nañ dugg au moins YouTube pour mën a xool maanaam ki ëppale ay jam ki ëppale ay vues ki ëppale ay kii parce que foofu tamit nit ñi dañ ciy dañ ciy kii mais bu ñu ko xoolee ci ay paroles actuellement rek artistes yu bëri dañuy daanu parce que artistes yi ñu si bëri waxuma ñëpp nag ñu si bari waaye ñu may dañuy ambiance. Bass mhm. waaw xam nga Bass Thioung moom dafa nekk koo xamante ni bi euh, artiste la boo xamante ni moom day ambiance boo gisee lu tax sax rappeurs yi léegi dañ koy xëcc parce que dafa xew xew boo xamante ni bi moom bu bokkee sa son sax sa day am xaam day ku la waxoon ne Samba Passy dina dem ba featuring Abass Thioung ku la waxoon ne la euh, ki dëkk fee Dip Dip Doundou Guiss dina dem ba featuring ak kii est-ce que comprendre nga kon moom aussi am na solo li nga xamante ne moom moo ji ci musique sénégalaise parce que dafay indi loo xamante ne bi moom la askan wi bëgg moom la xale yi bëgg moom aussi la musique sénégalaise di dundee muy musique pure et dure. Euh, pàcc bi mujj ci euh, actualité bi mu di Sénégal Babacar Diagne artu bi muy artu média Sénégal yi ci weeru koor yi nee na ren moom bëggul a gis maanaam wàllu ring ak jongante ci émission yi. sëñ Xaadim avant may dugg ci loolu di rafetlu junior les cadres yu mu fi yëkkati donte man je ne suis sax côté musique mais ku ko dégg mu wax ak ni muy exprimer wu da ngay xam ne kii ku maîtriser li muy li muy li muy li muy wax la te loolu moo ëpp solo loo gis maanaam li ñu naan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut moom moom en tout cas li muy li muy wax daal maîtriser na ko bu ñëwee ci wàllu général li nga ci ni nga ko waxee man damay apprécier li nga xamante ne moom la Babacar Diagne wax boo xoolee euh, maanaam kilifa diine yi dafa am fu ñu leen war a teg te jàpp naa ne nag weeru koor comme ni ma ko waxee woon sànq weeru koor bu ñëwee dañu xam nañu war a xam ne weeru koor weeru koor jaamu yàlla la mais nag bu fekkente ne nag dañoo dem ba weeru koor ñëw ñu ci dugal ay dérive wala dugal ci affaire succès wala affaire sama sëriñ moo mën sa sëriñ wala botte contact xastante te maanaam loolu la ñu gis ci plateau ci plateau télévisé yi parce que da gis ñoo xamante ne dañ leen di invité ci benn dañuy invité benn exemple murit murid bi ñëw wax bu waxee xëy suba ñu invité keneen ko wax beneen tarixa léegi bu ko defee kii bu waxee ci sëriñam kii kii xas sëriñam te donte que sax que maanaam kooku lu muy wax ci sëriñam loolay dëgg mais am na koo xamante ni peut-être du ko mën a euh, du ko mën a attan léegi ni koy koy fajee mooy dem ci gannaaw clavier bind sànni xeer walla saaga hmm. te yaakaar naa loolu nag maanaam loolu taxu woon jug loolu li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy débat yooyu moo tax Babacar Diagne li mu def nii man dama ci ànd ak moom waaye aussi tamit bu mu ko yemale fii rek parce que man gis naa ni dafa am loo xamante ni liñ naan weñ gi mu ngi bañee sa bañax ca bañaxaan gi xam naa ni sama waa ji moom moom gën a xam <laughs> li may wax ni maanaam loolu da ko war a dañ ko war a nekk loo xamante ni mu nekk procédure mu ñu bañ ko def rek weeru koor ba weeru koor ñu ñëw dajaloo ne no bu kenn wax ci plateau yi wala kii maanaam dañ ko war a jël en considération ci lépp xam ni kat maanaam euh, wàllu média dafa sensible te wàllu média man jàpp naa ni bokk ci li ma jàpp mooy télévision yi encore une fois maanaam éducation moo taxoon ñu moo leen taxoon jóg parce que boo xoolee bu njëkk ba bu ñu buggee jàllale benn euh, euh, information dañ koy jàllale ci télévision yi léegi il suffit que ñu jàllale ko ci télévision yi maanaam mu nekk benn yar ci saa si rek da ngay adapté wu léegi nag mais bu ñu demee ba maanaam lekk mu nekk controverse boo xamante ni li ñu war a wane si télé yi léegi leneen la ñuy wane yaa y'a énormément de problèmes suñu xaari d'accord euh, loolu moo nekk jàngat bi ci euh, côté général euh, bi mais aussi sëñ Ibrahima pàcc bu ñu ko doon wax responsabilité bu ñu koy situé ci ñan la war a doon exactement. non maanaam kilifa diine am nañ ci responsabilité sénéral am nañ si responsabilité waaye ñi yor télé yi aussi am nañ ci responsabilité kon donc maanaam les responsabilités son partagées moo tax nag ku ci nekk comme général moom dem na ba jël responsabilité maanaam dirigeant yi wala gi nga xamante ni directeur télé yi aussi ñoom nañ jël seen responsabilité parce que dafa am loo xamante ni seen xaadim siw wala bugg am succès wala am plus de visibilité jaru ko ndax àdduna yemul fii rek. àdduna yemul fii rek mais bu fekkee da nga bëgg nag visibilité wala bëgg jam wala bëgg benn euh, followers ba tax na nga créer benn maanaam genre xumbaay. boo xamante ne ay xastante la pour ñu ne non kii ka télé bi moo parce que moo fi cartonné parce que boo xoolee daaw. comme daaw daawati géej am na benn télé bu ko jëloon léegi daaw ñu ne non kee jëlu ko kii yee ko jël parce que kee moo ëpp te ren lim def lim jaxase te kon yaa yaa yaa problème kon donc maanaam télévision yi aussi directeurs yi am nañ ci rôle am nañ ci responsabilité bu dee kilifa diine yi aussi am nañ ci responsabilité parce que kilifa diine yi aussi man man sax dama waxoon à ce que ñu jël benn kër gu nekk comme lu mel ni murid yi ñu délégué ñoo xamante ni ñooñu la ñoo ñoo war a wax. te loolu maanaam ba ma ko xalaatee am na keneen ku ma ci waxtaanoon daaw effectivement loolu la wax mu ne ma lii de lu am solo la maanaam bul mel ni murid comme ni sëñ Bass Abdou Khadre nekkee porte parole maanaam ñu jël ñoo xamante ni dañ naan ñii ñooy commission commission wala comité bi nga xamante ni ñoom ñoo war wax ci weeru koor gi nga xamante ni bon ñoom bu ñu demee au moins dina am benn atténuance boo xamante ni dinañ ko mun a wax waxi ci plateau yi te duñ déraper duñ xas kii mais am na ñoo xamante ni aussi bu ñuy waxee yi sëñ Xaadim xam la la ñuy bëgg ku leen di jox ku jox xaalis wala ñu jox leen oto parce que nag plateau yi ah xaat daraa ngi ji parce que ah ñëw tagg sa sëriñ am mun ci benn ci benn guddi mun nga fa jëlee plus de vingt millions am ci oto am ci kër am ci ay tere mais dangay ñëw bakk sa sëriñ keneen ki tamit bu ñëwee nga xas sa sëriñ te loolu nag c'est déplorable encore une fois maanaam ñun dañoo nekk euh, ni ñu koy waxatee euh, askan boo xamante ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sëñ Abdoulaye Mbacke doon wax tiijaan xaadar laayen ñaseen nee na mu ngi mel ni rek ñu bokk nday ak baay nee na yow nga ñuul man ma xees kii xeereer noonu la mel nee na koo ci xas rek da ngay xas ke ca des kon donc jàpp naa ni am na loo xam te ni moom maanaam mën naa ñàkk daal jërëjëfati euh, sëñ Ibrahima laata ma euh, tëj junior mhm. euh, ba tey ci Rayon Musique donc ñu gis ne nominé yi bëri na côté émission télévisée et puis côté émission rajo ah. nga xam ne vous et bëgg leen bu njaag ba Alima Cheikh Sarr mais au finish ñu gis na benn émission moo ko mujjee remporté muy Zik Feeling entre Alima Ndione ak Cheikh Sarr en tant qu'animateur nag nga jàngatee loolu. Mhm. waaw Alima Ndione ak Cheikh euh, bon peut-être mën naa ne euh, dañoo nekk ci maanaam rajo boo xamante ni bii dafa gën a dafa gën a am doole fii ci Sénégal mais am na aussi émission yoo xamante ni pour man gars yi waroon nañ ko mën tàggat war ko jàngat xool ba xam parce que xaadim euh, am na jeunes yoo xam te ne ñu ngi toj rajo yi. am na jeunes yoo xam ne ñu ngi toj rajo télé yi mais bu ñu bëggee jël raaya bi euh, jël ay musiciens teg jël ay tàggkatu yonent bi nabiyen yi teg jël ñeneen teg mais pourquoi pas mënuñu see boole yi ñi nga xamante ne aussi parce que tey comme ni ma koy waxee animateurs na fi ñoo xamante ne ay jeunes lañ mais tey ñooy yëngal serveur vocal yi nañu waxante dëgg xam nga ñooy indi nit ñi xam nga ñooy am fan club bi ñoom ñooy def yeneen ak yeneen ak yeneen donc pourquoi pas ñoom aussi euh, mënuñu xool ci yi nga xamante ñoom ñoo di jeunes talent yi nekk ci rajo yi ak si télé ñu boole leen ci kii bi mais bu fekkee ne da nga bëgg jël loo bi teg ko ci kaw rek ku ci mel ni euh, jël jël benn Aba jël benn Alima Ndion xam nga jël jël jël Cheikh ñi nga xam te ne ñoom rek la ñu kii dafay xaw a metti ñoom nag euh, ay ay ay ay ndaanaan lañ comme ni ma koy waxee euh, ci animation sénégalaise ndax ku ne xam na ne ñii ñi bëgg nañ leen xam nga ku ne xam na ne aussi nekk nañ ñi ñoo xamante ne aussi xam nga ñi ngi ñi ngi seen émission nag lu tax mu neex ma mooy parfois dañuy dañuy dañuy animé ba mu yàgg yeewaat askan wi ku ci mel ni Cheikh Sarr day jékki-jékki wax benn actualité xam nga yeewaat ak seen askan bi ak yeneen ak yeneen en tout cas daal li ma la si mën wax moom mooy baax na ndax ñoom ay naaraan lañ euh, yoon la ñu am waaye tamit nag bu beneen yoonee gars yi war nañoo mën a xool ci yeneen animateurs yi aussi pour mën leen cee boole ndax ñoom aussi ci animation sénégalaise ci lañ bokk mën leen jox chance voilà jërëjëfati euh, euh, euh, mhm. di jaajëfal ñëpp di la jaajëfal yow mi nga xamante itam tam yaa invité woon fii ci plateau bi ngay ndaanaan kullu fadri ni ma koy waxee di jaajëfal tamit sama mbokku journaliste bi Ibrahima Faye nga xamante ne moom itam ndaanaan la nag <laughs> ndaanaan la ndax xamul tax mu neex ma mooy que ne moom dafa dafa maanaam dafa xam nga ku nekk ak ak li nga xamante ne moom nga xam ku nekk ak li nga xamante ne moom nga miin moom dafa miin actualité c'est nit boo demee ba nekk ci milieu bi da nga war a suivre actualité mel ni man nga xamante ne moom people rek laay topp <laughs> di ko jaajëfal bu baax a baax Ibrahima kontaan nañ. Euh, di ndaanaan ci domaine wàllu people sénégalaise nga xamante ne bii donc bi mu ci nekkee yàgg na bokk na ci ñi njëkk teete ay ndaanaan yoo xamante ne bi fi mu ne ñu ngi leen di dégg travers le monde sëñ Ibrahima sa kàddu bu mujj ci émission bi. waaw suñu xaam di la sant di la gërëm waaye di di rejoindre tuuti rek euh, junior ci li mu wax sànq te maanaam ndaw yi parce que euh, dama koy jël exemple si ñun da ngay gis maanaam ñoo xamante ni dañuy mën a jàng tout le temps ñoom la ñuy jox li nga xamante ni moom ay raaya gis nga ni mu ngi amee ci côté bee am na ko si ñun parce que am na ñoo xamante ni ay jànkal yu mu mel ne ay xaarim gay xaarim gay ñëpp xam nañ ko ay Cheikh Jomba ñëpp xam nañ am na ñoo xamante ne ay ñuy soog a jóg te mën a jàng léegi nañ misé wu ci ñooñu mooy li mu doon wax sànq kon côté boobu man laay lancé côté côté côté diine gi maanaam tout le temps rek bu ñu fekkente dañ bëgg a ñëw ñu defal ne ñi focus. ñi ci kaw te ñi ci suuf wax dëgg yàlla des fois nga dajeeg ci am na ñoo xamante ne ay jeunes talent yoo xamante ne wax dëgg yàlla mais war nañ leen daal loolu laay lancé di la sant di la gërëm waaye aussi di wax ni tamit di xaw a waxaale tuuti rek ci wàllu tëj saison parce que dafa am loo xamante ni Sëñ Xaadim c'est grave parce que nag bu fekkente dañoo nekk ci dëkk dëkk diine ñuy dem ba ne dañuy tëj saison mu mel ni maanaam nit ñi dañuy waaj a dee wala àdduna day tëkki wala boog wala boog wala boog lu neex moom wala lu wala lu neex moom wala comme ni nga ko waxee liggéey champion wala lu neex moom léegi après dootul amati mais c'est grave non mais dafa xoromu sëñ xaarim tëj saison yi daal moom <laughs> en tout cas doy na war sëñ xaarim loolu daal d'accord ma si tey d'accord ma ci ëllëg léegi yow boo demee tëj saison ba faatu fa wax lan ngay wax. ah, ah en eh. tout cas. te te doy na war doy na war <laughs> doy na war. mbokk internet yu Setsima TV di leen gërëm bu baax a baax ci wéy gi ngeen di àndandoo en tout cas ak seen chaîne préférée muy Setsima rawatina émission bi leen di tàkkusaanu Setsima gërëm leen sant leen bu baax a baax waaye itam jaajëfal équipe technique bi euh, ku ci mel ni Ibou Diop ak euh, Ousmane Noreyni tout court euh, Serigne Cheikh donc jaajëfalaat leen bu baax a baax di leen ñaanal nag weeru kooru jàmm ramadan mubarak jërë ngeen jëf incha allah ci beneen jotaay. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur TV xibaar yu wér te